édition wu bii di màggal Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñu ngi ko ndar keppe ak cérémonie officielle bi ñuy amal fii ci kër gu mag gi jàkkaarloog jumaa ji dellusi si si doy kii ñuy màggalal Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom la kilifa yépp def tàmbalee ko ci Serigne Moustapha Abdoul Khadr Mbacké moom sax gis na ni jàmbaar fit ak xel kooku mooy borom bis bi man li ma xam ci moom ku ma ko doon portale loo ne ma sëñ loo xam ci moom man ci ni ma koy tënki jëmm la woon joo xam ne ku amoon njàmbaar la ku amoon xel la la ca topp mooy ku amoon fit la te xil euh, fit ak xel nga boole leen am ci histoire dañ leen di wàññi ñi ñi boole loolu waaye nag ki nga xamante ni moo ko fi toogal di sëriñ Sidi Mbacke ay seede yu rafet bàyyeekoon na si kilifa yi ñëw si moom sëriñ Moustapha Mbacke moom Cheikh Abdou Khadre Mbacke ak Cheikh Bassirou Abdou Khadre Mbacke amal seede yu rafet si jëmm ji ku wér jikko la moo tax yow mën a àndal la toppit mooy wayaf giñ daa wax ci seen blaat loolu moom nee na ci moom kon nag yàlla na ko yàlla dimbale mu mu mu liggéeyam sëñ Tuubaa jàppale ko ci mu mu lii ko sëñ Muntaxa jiital ci liggéey bi ni yàlla na ko ci yàlla defal pëstéef bi mu ci am yàlla defal ko ci ndam bu baax a baax a baax a baax ku xam ku ne xam ne na kilifa gu baax nga Cheikh Abdoul Ahad meloon tànk yooyu noonu la la yàlla meloon ci jikko mooy ci dëggu ak yor wenn melokaan akuk taalibe ak bëgg Sëriñ Tuubaa moo tax kerew ba fi Sëriñ Saaliwu Mbàkke bàyyi ca guddi nga dem ba ci cheikh Mouhamadou Lamine Bara yee salaat sa njëbbal ci moom ne duma fanaano te amub sëriñ kon ku ne xam ne sab dayub taalibe bi mu fi bàyyi ko itam ak cheikh Sidil Muxtaar nga defaat noonu ci kanamam yee salaat sa digg moom mu dénk la lu bari nga rafetal lépp ba dinaa ci seere keroog bis bi ma ko mujjee gis ci laa ko mu di gise nga yóbbaat fa Abdou Lahad mu indi addiyee tool yi mu yéemu ko lool sant la gërëm la yeesal sa digg ak moom seere sa pëstéef keroog laa ko mu di gis gisaatuma ko keroog fi bàyyi biñ ko taxawoo ba noppi yaa jëkke yëkkati say loxo jaayanteeg Cheikh Mouhoudou Moutakha ne ko jébbal naa la sama bopp kon ku ne xam na ne ku fi nekkal Serigne Touba ku ne jox nga ko lépp li nga am kon nag seen diggante boobu yàlla na yàgg lool. naka noonee programme bi di yi meeru Touba doon taalibe si kër Cheikh Abdou Lahad Mbacke jóge loolu kilifa gii di Serigne Sidi Mbacke moom mi mu dénkoon lenn si liggéey bi ñëw nag ngir indi compte rendu. war a leeral sëriñ bi lim ñu santoon ak ñim ñu booleetoon ak ni ñu ko doxale ci ñi nga xam ne ñoom lañ ko séqal ci turu commité de organisation bi nga xam ne Serigne Mahmadan mii moo nekkoon ci suñ kanam waaye ci turu conseil municipal bi nga xam ne dama ànd ak bureau municipal bi ak conseil municipal bi ànd ko ak administration bi te bu ma ne administration gouverneur de la région de Diourbel moo jiite woon CRD bi ñu ànd ko di ko waajal ca njaareem ak chef service régionaux yëpp ak départementaux yi sëriñ bi li nga xam ne moom nga ñu booleetoon muy taalibe yi ak njaboot gi ak bokk yi ak soppi yi ak xarit yi ñu ànd liggéey bi mbooleem li nga xam ne waroon nañ koo def ci bis bi te war koo ànd ànd nañ ko ba mët sëkk muy ci turandoo yi muy ci taalibe yi nga xam ne ñooy tërbe yi dongoy tërbe yi muy dongo yi nga xam ne suñu bokki taalibe lañ muy wóllëre yi muy xarit yi ànd ko ak gouverneur de la région de Diourbel def benn CRD li nga xam ne commune bi jëloon na ko waroon wàllu commune bi la woon mu war ko def def commune bi def na ko ba mat sëkk kon muy gërëm bu baax a baax bureau municipal bi te bureau municipal bi suñu ci jëlee ngërëm ne jox ko Serigne Sidi Mbacke Abdou Assis ak Serigne Abdou Lahad Gaynde Fatma ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp bi jox nañ ko ñëpp waaye di gërëm mbooleem conseil municipal bi nga xam ne àndoon nañu ñoom liggéey bi ak administration bi ba agsi fii bu dee nguur gi monsieur le ministre Mame na Dieng moo leen fi teewaloon woote kàddub dal tàmbale ko ci opposition bi nga xamante ni jàpp na ni ñoom duñu ay noon waaye réew mi rek moo leen boole dellu ci waat lu yaatu ci doy waayu Cheikh Abdou Lahad Mbacké di nuyu itam nag ñu nekk ci opposition bi ñëpp di leen wax ni tubaab laa koy wax soyons des adversaires politiques et pas des ennemis nanu nekk mën nanoo bañ a bokk langue politique waaye bu nu doon yi noonu ndax réew mi nuyoo bi bu jàllee jamono yu mel nii dañ cee war a fàttaliku nag di ñaanal ñi fi nekk jiitu loolu tam wóor na dinañ leen fekki te ñooñu ñu ci gën a fàttaliku Serigne Cheikh Bara lii ci la bokk ñu ñaanal ko ñaanal tam ndax li mu def ci yoon wi def ko ci Sénégal def ko ci àddina ñépp ko ko amee cérémonie bi ñu tëje ko kàddub Serigne Mahmadan Mbàkke mu doon coordonnateur bu màggal gii ñu tegoon nag lépp ci loxoom sëñ bi rafetlu taxawaayu taalibe yi mbokk yi am di jàmm yi laata nag muy jaajëfal nguur gi nga xamante ni ñoom ci seen wàll jàpp nañu ci liggéey bi bu baax yéen ñi fi teewal njiital réew mi di président de la république Macky Sall di ministre Mame Thierno Dieng ak ñi nga àndal ñépp sëriñ baa ngi leen di telloo ab nuyoo di leen yónni nag ci ki leen woon di ko xamal ni sant na ko gërëm na ko ndax nun ñii mu yebaloon ci lu nguur war a def ci bis yu demee ni yii mbooleem lu nu sàkk woon def nañu ko ba mu mat sëkk te dara di succ te kilifaam ku baax gi Cheikh Abdoul Ahad dafa waxoon nag ni fa xay suma ahsana sul ihsaani sëñ Tuubaa ko wax sax fa xay suma ahsana sul ihsaani ilayka fahmatu bila tawaani saa boo aja rafet rafetale jëme ko ci sa wàll na ko sant fa saasa te bu ko yeexe kon moom nee na ab sëriñ la te sëriñ ñaan rekk la am te ñaanit mooy ngànnaayul jullit ak duhaa u silaahul mu'min kon mi ngi koy ñaanal moom ak gouvernement li ko dale ci kaw ba ci suuf fépp bu ñu fépp fu ñu bagga bëgg àggal réew mi ci lu baax ñu àggale ko fa jërë ngeen jëf gannaaw loolu commission culturelle bi nga xam ne ñoom lañu ñu dénkoon màggalu Touba gi ñu saytu ko sëñ baa ngi leen di beral cant ngërëm ci seen taxawaay bu rafet documentaire yëpp bàyyi woon nañ ci xel waaye dara jéggiwu ci daye kenn waxu ci loo ci war ta wax presse bi itam ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci taxawaay yu rafet yi nga xam ne ba màggal gi dooree ba nëgë ni yéen a ngi koy def firnde ji nag mooy bogaan mi teew def ko direct di def bisi sëñ Touba yëpp direct ak ak Touba TV ak ñeneen ñemel na ñoom yépp teew fi ngir bisub Cheikh Abdou Lahad bi li ñu leen di ñaanal yàlla yàlla fay leen su ñu kawe seen jot jërë geen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëñ bi rek lañu ñoo xam ne sëñ Touba ak ragal ak yaakaar rek lañu ko ci fàttali màggal gii amal nañ ko ci Touba Sénégal wërngal këpp ba ci diaspora bi mbooleem daayira yi njabootu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké doon fàttaliku ñetteelu xalif général des Mourides.